salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet bi seen football TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen képp koo xamante ne danga bees ci bu ñëw nga mën ko salaam bu fàttee tamit une vidéo bu xamante box box ma gis ne c'est le na li moo tax may gën a insister à chaque fois ci biir national dafa am lu xamante ne yi dafa am solo trop trop ci joueur yooyu lan moo tax may dafa am solo tey jii dama benn joueur bu mel ni Iliman Ndiaye mais Iliman Ndiaye dama def suñu vidéo ba famille am ñoo dem ma au niveau de bu ñuy wax si i commentaire xam nga a nag euh, jamono bi Aliou Cissé la dernière fois benn benn interview mu def wax na ne ne contacté na ko donc tey jii sa match olympique lyonnais contre lii franchement comme nombele bi mu si tolloo quoi nombele bi nekk Tottenham nekkoon olympique lyonnais c'est un joueur box box un joueur parfait pour championnat Angleterre xam comme anglais yi ñu ko bëggee comme euh, boo xoolee dernier boo xoolee ay at ci ginnaaw Mouhamed noonu la mel au de l'équipe nationale Sénégal même si nag Sénégal wane ko bu baax a baax mais au de Hull City wala au de Newcastle doon nag fa bu baax a baax un jour box box xam nga jour bu xamante ne vers de di kii nii am na bu toppee yoon bi continue liggéey mën na nekk xamante ne dinañ ko dégg moom nag dafa nekk profil bu xamante ne différent si yeneen biir nationaux yi différent si militaires yi xamante ne jamono yi équipe nationale du Sénégal moom lañu yor parce que boo Pape Alioune Dia miy dem Arabie Saoudi bon boo xoolee Pape Matar Sarr keneen ak keneen Soumaré nduroo si kenn profil nga jël ñi nga xamante ne ay biir national nga jël Boubacar Kamara nga jël Pape Gueye nga jël Sofiane Diop Soumaré nduroo ñoom Soumaré c'est un joueur bu xam box box un joueur bu xamante ne franchement Paris Saint-Germain la jógee ñëw lii xam nga gis ngeen championnat bi quand même galtee daaw am na benn moment euh, waa waa kii Wolverhampton joxoon nañ benn somme mais boobu moom moo décidé toog nii

xamante ne am na euh, fédération nationale de football c'est comme que ko bu franchement parfois dañuy wax yi ne ah, est ce que franchement jar il a le talent joueur box à l'anglaise yéeg wàcce franchement au niveau de championnat France ça soit gig laay wax ak franchement top man maa man gis naa si moom euh, au niveau de Ligue des champions bi ñu dajeeg ñoom yi euh, Valence day ñoom yi Chelsea dèjà wane woon na talent am instant dafa nekk di confirmer rek donc mbokk yi nekk ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV bye bye.